asalaamaaleykum mbokki ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a koy ànd ak QTV rawatina yéen ñi nga xam ne nag yéen ay faral di déglu radio bi si o 103.3 ñu andi leen xibaari digg bëccëg bi ngeen ànd see seen doomi ndey Linguère Basin Lom si boppi xibaar yi nag di ngeen dégg foofu noonu sa néegi député yi ne jamono yi nag ñu ngi doon waxtaanee mbiri kii nga xam ne nag mooy Bakary Sanyang nga xam ne nag moo fi nekkoon gouverneur foofu noonu sa West Coast Region président bi moo ko tànnoon pour mu liggéey foofu noonu sa ombudsman ne jamono yi nag li nga xam ne nag yàggoon neen di ko kisi kisi ba xam na den koy jël foofu noonu sa ombudsman wala duñu ko jël ne jamono yi nag mbir mi leer na nañ ne dineen ko jël mu dal di liggéey foofu noonu sa ombudsman ba tey foofu noonu sa base kuy kamaj bi nga xam ne nag saa su nekk mu fay am rawatina nag si weeri koor gi ñu nekk lii nag waral na ñi nga xam ne nag ñooy yeewoo base dal di wane loolu nga xam ne nag mooy seen naxar si loolu nga xam ne moo fa nekk di am jamono yii nii ba tey li mujj si xibaar bi di ngeen dégg ab directeur boo xam ne nag moo nekk si wàllum kaso gi ne jamono yi nag ñu ngi seen naka la ñuy mën a aaree seen boppa si loolu nga xam ne mooy feebari mbas bi ba du tasaaroo si kaso bi yii ak yeneen i xibaar si ganaaw bàkk bi lay doon ñu andi dolli si ay mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon sa uh, boppi xibaar yi rek kii nga xam ne mooy Bakary Sagnang ne jamono yi nag néegi député yi dal nañ ko jël pour mu liggéey foofu nga xam ne nag mooy ombudsman bile mbir nag mi ngi amoon si talaata bi ñu génn gannaaw buñ càmbaree kooku nga xam ne nag mooy Bakary Sagnang ay mbiram ñu gis ne jamono yi nag war naa mun a am liggéey ombudsman boobu noonu gannaaw bu ko président bi tànnalee boppam pour mu wala liggéey foofu noonu sa ombudsman leneen li nga xam ne tamit waxtaane nañ ko foofu noonu sa kero ba mooy kii nga xam ne nag mooy Bakary Sagnang nekk na ni koo xam ne nag war naa mun a amee place boobu ñu ko jox foofu noonu sa ombudsman te am nañ yaakaar ne place bi suñ ko ko joxee dina ko liggéey si nu mu waree keneen ki nga xam ne gaaral na fa kaddu di uyoo si Kéba Kébaro nee na kii nga xam ne nag mooy Bakary Sagnang ñoom nag seen comité càmbar neen ay mbiram ba gis ne bi la liggéey war na ko mun a yóbbu foofu noonu sa ombudsman ki nga xam ne nag moo toppa si président réew mi di uyoo si docteur Aïssatou Touré moom nag nee na mu ngi gërëm ñi nga xam ne nag ñooy député yi gannaaw bi nga xamee nag nangu neen pour jël kooku nga xam ne mooy Bakary Sagnang pour mu liggéey foofu noonu sa ombudsman gannaaw bu ko président bi tànnalee boppam pour mu mun a liggéey foofu noonu waaye ba tey moom ay Aïssatou Touré mu ngi gën di xamal ñi nga xam ne nag ñoo nekk si néegi député yi mooy ki nga xam ne nag tànnal leen ko pour mu liggéey foofu noonu sa ombudsman place bi nga xam ne nag moom leen ko jox pour mu dal di fa liggéey nekk na di ko xam ne nag dina def liggéey bi si nu mu waree te it boo ko seetloo njëriñi réew mi la gannaaw bu ñu joxee liggéey bi kooku nga xam ne nag mooy Bakary Sagnang foofu sa ombudsman leneen li nga xam ne nag gars yi gëstu neen ko sa kero bés booba noonu foofu noonu sa néegi député yi mooy kii nga xam ne nag mosoon na fee nekk ab sordaar di uyoo si ritaya colonel Momodou Ndaw njaay ak keneen ki nga xam ne tamit mooy Youssoufa Bakary Diba ñi na bokk neen si nit ñoo xam ne nag ñu ngi leen bugg boole si ab mbootaay bu ñu bugg a taxawal pour saytu loolu nga xam ne mooy mbiri sordaar yi waaye nag balaa ñoo commencé di càmbar ñaar ñi le seen mbir kii nga xam ne nag mooy ministre bi amee wàllum kaaraange gi si réew mi di uyoo si Omar fay nee na nag bile mbir nag war neen ko mën a seetaat bu baax a baax ndax bile kansul bu ñu ko taxawalee dina jàppale ñi nga xam ne ñooy soldaar yi seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo nekk doomi réew mi pour saytu lépp loo xam ne nag dafa yóbbu réew mi kanam waaye tamit dina wecci ñi nga xam ne ñooy soldaar yi seen doxin ba saa su nekk na dineen gis li nga xam ne moo gën si ñoom kon nag taxawal bi am njëriñ loo xam ne war nañ koo mun a càmbaraat bu baax a baax ba tey kooku nga xam ne nag mooy Cheikh Omar Faye nee na bile mbir nag mosut am si Gambie bi ba tax na bu ñu ko taxawalee am na yaakaar ne dinañ si gis njëriñ bu bëree bëri. bu ñu demee si kantoora nag ki nga xam ne moo leen fa toogal di uyu si bile jee tunkara moom nag nee na bile mbir mu ngi koy rafetlu bu baax baax ndax jamono yi gannaaw bu ñu amee ab wécceeku fi si suñu réew lii nga xam ne nag moom la gars yi bugg taxawal di ab kansul seet naka leen fa dugalee ay soldaar yi pour ñuy càmbar seeni mbir ak ñi nga xam ne ñoo nekk si réew mi dina doon mbir moo xam ne nag dina njëriñ askan gi lool ba tey keneen ki nga xam ne garal na kaddu di uyoo si Halifa Sallah moom nag moo fa toogal rafetlu te am na yaakaar ne dina njëriñ ñooñu nga xam ne ñooy doomi réew mi rawatina bu ñëwee si wàllu démocratie. waaye ba tey ñi nga xam ne nag ñoo nekk député yi ñoom nag am nañ yaakaar ne bi leen mbir dinañ ko càmbar bu baax a baax balaa ñu see mun a wax leen lu leer ba tax na jamono yi nag ñu ngi aj mbir mi ba ca kanam seet naka la ñoo ñëwaatee pour gën see mun a indi ab yaatal. ba tey leneen li nga xam ne nag moo jaaxal askan gi te ñëpp toogoon di ko xaar te ñu gis ne keroog bés ba waxtaanee wuñu ko foofu noonu sa néegi député yi mooy li nga xam ne nag mooy yokkute bi nga xam ne saa su nekk ñu ngi koy laam-laamee ndax Gambia dafa war a toog lu dem si 45 days maanaam ñeneen fukki fan ak juróom wala dafa war a toog si loolu nga xam ne mooy 21 days maanaam ñaar fukki fan ak benn seet ba xam ne dañoo yokkal fi président waxoon waaye dafa mel ni keroog bés ba lépp loo xam ne nag aju na si wàllum yokk bi wala wàññi bi ñi nga xam ne ñoo nekk si néegi député yi amul kenn xam ne wax na wax bu mel noonu ba tey dañoo aj lépp loo xam ne nag jëm na si wàllu seen liggéey foofu noonu sa néegi député yi ba on the 15 June 2020 maanaam si weerum June gannaaw bu mu amee fukki fan ak juróom si at bii ñu nekk nii. mbokk yi ba tey ñu dema leen foofu noonu sa URR maanaam foofu nga xam ne mooy tund base ñoom nag gis neen depuis bu weeri koor gi duggee loolu ga xam ne nag mooy kuy kama bi bëri na fa lool ba am na ñoo xam ne nag jamono yi dëgg dëgg ñu ngi wax seen naxar foofu noonu sa base ba tey foofu noonu sa base gannaaw buñ jàppee ay nit nag wane ne ñoom den doon sàcc loolu nga xam ne nag mooy essence seen bu liggéeykaay bi maanaam foofu noonu sa nawet am na si ñoo xam ne sax ñu ngi naan du ñàkk sax loolu moo tax ñuy ñàkk loolu nga xam ne mooy courant ñeneen ñu naan seen yoon nekku si si li nga xam ne nag sàcc neen ko foofu noonu wala sàccuñu ko foofu ñoom daal li nga xam ne nag moo leen itteel mooy base war naa mun a am loolu nga xam ne mooy courant rawatina nag si weri koor gi ñu nekk nii lii nag waraloon nag kenn si suñ taskati xibaar yi dem foofu noonu si base pour seet lan moo nekk problème bi diggante naweek ak ñooñu nga xam ne naka ñoo nekk base ba tey bu mu àggee foofu noonu sa base nag ëpp doole bi ñoom li ñu doon jéem a wax ñooñu nga xam ne nag ñoo nekk di liggéey foofu noonu si nawet ne saa su nekk dañuy faral di wax ne nag seen essence bi dafa nii wala seen essance bi dafa naa waaye nag gis ne ne saa su loolu dafay nekk problème ba loolu nga xam ne nag mooy kuran daf dee gën di ñàkk foofu nga xam ne mooy base rawatina nag si weeru koor gi ñu nekk nii. ñeneen yi nga xam ne tamit laaj nañ leen si bile mbir ñoom de nee na dégg nañ ne ñu nga xam ne nag ñoo nekk di liggéey nawek am na si ñoo xam ne nag ñoo sàcc seen essance bi ba jamono yi loolu nga xam ne nag mooy essence ñàkk foofu noonu sa nawek moo de waral saa su ñu ñàkk loolu nga xam ne mooy courant ba tey ñi nga xam ne nag ñu ngi amee seen business yi foofu noonu sa base moo xam ndax business bu mag la wala business bu ndaw la li ñu xam daal mooy seen business bi ëpp doole yëpp courant bi moo ko yóbbu te gis ne ne jamono yi nag mu ngi leen di sonal bu baax a baax ndax boo déggee yaa ngee taka nga xam ne nag mooy ice block dafa fekk yaa gis loolu nga xam ne mooy courant ba tax na ñu nge ñaan ñu nga xam ne nag ñoo nekk di liggéey foofu noonu sa base te amee loolu nga xam ne nag mooy seen wàllum courant gi te saa su nekk nag ñu ngi leen di ñaan pour ñu jàppale leen ab businessman nag di uyoo si Sadio Kale nee na moom nag jamono yi li nga xam ne moom la gis base jaaxal na ko lool nga boo ko seetloo foofu noonu sa base depuis bu weeru koor gi commencé kuy kamaj baa ngi mel ni foofu kaay seet lu mun a wax gars nawe gi daal am na loo xam ne nag wax di gànneex yàlla boo ko seetloo ba seet doon na mbir moo xam ne nag ab disappointment la si moom ba tey am na beneen waxkat bi fa doon garal ay kaddu di wane nag moom yaakaaram dafa tas si ñooñu nga xam ne nag ñooy gars yi nawet te nekk foofu noonu sa base ndax boo ko seetloo ba bi muy waxtaan ak kenn si teskati xibaar yi bàyyeekoo fii ni si QTV nee na lu dem si fukki fan ak juróom-benn foofu noonu sa base gisul loolu nga xam ne nag mooy courant. keneen ki nga xam ne nag ab jaaykat la di uyoo si kaw Kawsu Faati Kawsu Faati nag moom ice block la muy jaay si dëkk yi nga xam ne nag ñoo wër base nee na moom it jamono yi am na lu ko naxari lool foofu noonu sa nawet ndax boo ko gisee loolu nga xam ne nag mooy ice block bi nga xam ne mu koy jaay ne jamono yi nag amalu ko benn njëriñ ndax duy gis loolu nga xam ne mooy courant foofu ndoonu sa base ba tax na mu ngee ñaan gars yi base yi ñu seetaat loolu nga xam ne nag mooy seen wàllum essence foofu noonu ñu nekk di liggéey keneen ki nga xam ne tamit garal na fa kaddu di uyoo si Lamin Konte Lamin Konte nag mu nga dëkk foofu noonu sa base si béréb bu ñu xamee Maane Kunda moom it bu muy garal ay kaddoom ngañe na ñi nga xam ne nag ñooy gars yi nawe gi foofu noonu si base si sàggante bi nga xam ne nag ñu ngi koy def seen wàllu liggéey gi ba tey li nga xam ne nag moo jaaxal gars yi base yi mooy ñi nga xam ne nag ñu ngi doon liggéey foofu noonu sa nawet te sàccoon loolu nga xam ne mooy seen essence yi xamul ndax ñooñu dañ leen di caaj wala dañ leen di yóbbu koot si ni mu gën a gaawee ba tey taskati xibaar bi continué na am waxtaan ak ñi nga xam ne nag ñooy liggéey foofu noonu sa nawek ki si mel ni nag Père Silva Père Silva nag moo amee kaddu gaay yi nawek gi moom nag bi ñu ko laajee bile mbir lim tontu ko nga xam ne mooy taskati xibaar bi mooy foofu noonu sa URR maanaam foofu noonu sa base boo ko seetloo lu ñuy soxla si courant jamono weeri koor moo dee ëpp sax si yeneen weer yi te boo ko seetloo lu ñuy soxla si courant dafa mel ni bu weeri koor gi jotee du koy mun a am. ba tey ki nga xam ne mooy Pierre Silva moom nag buñ ko laajee bile mbir ba tey mu ngi xamal taskati xibaar gi ne foofu noonu Sabasé nag ab ñaari générateur moo fa nekka te ñaari générateur yooyu nag boo ko seetloo mooy soplaay ñooñu nga xam ne ñooy URR te it mu ngi soplaay foofu noonu sa CRR ba tey moom Pierre Silva. nee na ñenn yi si ñi nga xam ne nag ñoo dëkk foofu noonu sa basete di ko laam-laamee mooy sàcckat yi nga xam ne nag jàppoon ne leen ñuy sàcc lu toll si 70 gallon nekku ne loolu moo tax essence ñàkk foofu noonu si nawet pour ñu mun leen a jox loolu nga xam ne mooy courant nee na amul leen loo xam ne def na ko si loolu nga xam ne nag mooy ñàkkum courant gi foofu noonu sa base ba tey moom père Silva balaa moo daaneel ay kaddoom nee na ñoom nag essence bu doy la ñu am foofu noonu si base pour yóbbu loolu nga xam ne nag mooy courant gi base bi mbokk yi ba tey foofu noonu sa prison maanaam ñi nga xam ne nag ñoo nekk si wàllum kaso gi ne jamono yi nag ñu ngi am ay bagage yoo xam ne jébal nañ leen ko jëmale ko nag si wàllum loolu nga xam ne nag mooy setal ñi nga xam ne nag ñoo def bile mbir ñoo bàyyeekoo foofu noonu sa GCCI. moom Kawsu Gassama nag mu ngi joxe yile kàddu gannaaw bu gars si ayi nag joxe leen ab bagage yoo xam ne nag war nañ koo mun a jëfandikoo seen béréb boobu noonu. ba tey moom Kawsu Gassama nee na nag gannaaw bu ñu nekkee si xeexam mbas ñu xamee si coronavirus ñi nga xam ne nag ñoo nekk kër doctor saa su nekk nag dañuy faral di nemmeeku ñi nga xam ne nag ñoo nekk si prison bi ba xam ndax ñu ngi def li nga xam ne nag moom la lu waa santaane maanaam wante boo xam ne saa su nekk ñu ngi koy wax suñu diggante. ba tey moom Seexu Gassama nee na nag ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ba gis naka la ñuy mën a aaree seen boppa si feebari mbas mi ba nga xam ne doo si foofu noonu sa kaso bi ba tey moom Seexu Gassama nee na nag mu ngi gërëm GCCI si xelaat bu rafet bi nga xam ne nag xelaat nañ ko pour ñëw jàppale ñi nga xam ne nag ñoo nekk si wàllum kaso gi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ndax boo ko seetloo dafa mel ni askan gi sax ñoom dañoo fàtte ne am na ñu nekk si kaso gi ba tax na duñ leen dee jéem a gëstu pour jàppale leen muy leen bokka war na ñoo mën a am ndimbal bi nga xam ne askan gaa ngi koy am si biti pour jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk si kaso gi ak ñi xam ne ñoom lañ fay liggéeyal ba tey kii nga xam ne nag mooy seen CEO bi foofu noonu sa GCCI ak kii nga xam ne tamit mooy Badara Jabi ñoom nag ñu ngi wane seen kontante si bile bi nga xam ne nag def nañ ko pour jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk si kaso bi waaye tamit ñu ngi leen di xamal ne bu soobee yàlla dinañ continuer lu rafet li nga xam ne nag ñu ngi koy def noonu si kaso bi. mbokk yi ñu dem ak yéen foofu noonu sa Sénégal bu ñu ko seetloo nag jamono yooyu ñu génn kii nga xam ne mooy seen président bi di Macky Sall toogoon na si seen télévision bi di xamal askan gi nag fukki fan yu mujjee yi si weeri koor dañoo ubbi jumaa yi ak jàkka yi ak yeneen béréb yi foofu noonu sa Sénégal bile nag bu mu amee foofu noonu sa Sénégal am na si ñoo xam ne nag dañ see ànda am na si ñoo xam ne nag àndoon si bile mbir pour ubbi place yi nga xam ne nag saa su nekk dañ fay faral di dem di jaamu suñu borom nag nak ci wéri koor gi ñu nekk bu ñu ko sétlo fofu nonu sa Sénégal ñi nga xamné nak faju nen ci fébar bi tollu nen ci ñom jundé way ñi nga xamné tamit ño seen bakkan fofu nonu sa Sénégal si fébar yi mbas bi ñu xamé si coronavirus tollu nen si juroom ñetti fukki nit ak ñenen ba tey ñu oppa doolé fofu nonu si Sénégal ñom nak nenen neen bu ñu seetee mbir coronavirus bi ni muy gëna lawé fofu nonu ci si Sénégal ki nga xamné nak moy seen président bi di Macky Sall di len xamalé nak dañu wara ibi jumaa jumaa yi ak jàkka yi nee nañ nag ñoom nag duñu dem foofu noonu nga xam ne mooy seen jumaa yi ba tey ñenn si jullit ñi nga xam ne nag ñu ngi foofu noonu si Sénégal ñu ngi xamal askan gi ñoom nag seen wérgu yaram moo leen gënal lu ne ba tax na nag jamono yi duñ ko jàpp fen lu dul foofu nga xam ne mooy seen kër yi di julli loolu nga xam ne nag mooy seen waxtu yi lii nag waraloon na lu ëpp si doole yi si ay imaam yi nga xam ne nag ñu foofu noonu sa Sénégal ñu ne duñu ubbi loolu nga xam ne mooy seen jàkka yi wala seen jumaa yi ba tey ñii nga xam ne tamit ñooy chrétien si ñoom ñu ne doon ubbi loolu nga xam ne mooy seen cooj yi foofu noonu sa Sénégal mbokk yi ba tey ñu ñëw ak yéen si xibaar bu mujjee bi kii nga xam ne nag mooy président bu Guinée Bissau ni ki fan yee ñu génn nag dem na fekk kii nga xam ne nag mooy président bu Nigeria pour am ak moom ab waxtaan. bi ñu ko seetee nag feebari mbas bi ñu xamee si coronavirus ni muy wëree adduna bi tax na ba ñenn si kilifa yi nag dañuy faral di toog seen kër yi di jëfandikoo loolu nga xam ne nag mooy internet bi maanaam di waxtaan si loolu nga xam ne nag mooy online. waaye ba tey kii nga xam ne nag mooy président bu Guinée Bissau bi di uyoo si si soxo moom nag nee na dafa war pour mu dem gis kooku nga xam ne nag mooy président bu Nigeria nga xam ne nag daf ko jàpp comme pappa su ko defee mu am ak moom waxtaan lu jëm si loolu nga xam ne nag mooy wàllu dëkkam. ba tey kii nga xam ne mooy président bu Guinée Bissau bi di uyoo si Omaru Sissoco nee na nag boo gisee mu dem foofu noonu sa Nigeria fekk kii nga xam ne nag mooy président Mohamed Bukari pour mu jàppale ko si yenn yi si mbir yi ndax gis na ne kooku la jàpp mooy papaam te it am na yaakaar ne mun na koo gindi si lu bëri. tey ki nga xam ne nag mooy président bu Guinée Bissau gannaaw bu mu toogee ak kooku nga xam ne mooy président Nigeria bi li nga xam ne moom la gars doon waxtaanee nee na si li nga xam ne nag mooy nekkine askan gi foofu noonu sa Guinée Bissau waaye tamit waxtaaneen loolu nga xam ne tamit mooy koom-koom gi foofu noonu sa Guinée Bissau waaye ba tey waxtaaneen naka la Guinée Bissau di nekkee benn pour gis ne jàmm ak salaam saa su nekk mu ngi dox foofu noonu sa dëkk bi rawatina nag bu ñëwee si wàllum sànnikat la nda boo ko seetloo daf dee faral di indi loolu nga xam ne mooy xaajaala ñoomi neen seen diggante waxtaan na mbir mi tamit naka lañ koy mën a saafare ba nga xam ne dina gis jàmm ak salaam am na foofu noonu sa Guinée Bissau waaye gis xam ne mooy sànnum karta si Guinée Bissau gannaaw bu ñu amee seen i indépendant ba tey saa su nekk jafe-jafe la leen di indil te am na yaakaar ne bu toogee ak kooku nga xam ne mooy président yi Nigeria bi dina ko mun a gindi si lu bëri. mbokk yi dafa mel ni lii la ñu waxtu mayoon ñu ngi leen di gërëm di leen sant si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi koy ànd ak QTV rawatina yéen ñi nga xam ne nag yéen ay faral di déglu radio bi ñu ngee ñaan yàlla feebari mbas mi ak yeneen i feebar yal nañu ko yàlla teggil waaye di gërëm képp koo xam ne tamit mu ngi nekkoon si wàllum machine gi ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla julli bii nga xam ne nag macha allah léegi tey mu nekk suñu kanam ñu ngee ñaan yàlla ñu dugal si ak jàmm génn si ak jàmm kon nag mbokk yi jërëgeen jëf ñu yendoog jàmm